suis animé d'un sentiment de fierté, mais aussi de redevabilité vis-à-vis de cette jeunesse-là. C'est pourquoi quand même on n'a pas lésiné quand même sur les moyens pour rehausser en tout cas cette journée pour qu'elle soit une fête de la jeunesse faticoise. C'est ça notre mission, c'est d'accompagner le chef de l'État, le président Macky Sall, mais accompagner également le ministre des Sports, Matarba. Donc c'est ça ma mission, ma feuille de route, elle est très simple. Et assurer ça, c'est être aux côtés des jeunes, c'est être aux côtés des populations, c'est aider les Fatikois. Donc c'est ça ma mission et je pense que j'essaie de la faire avec les moyens du bord. Mais je pense qu'aujourd'hui, vu cette fête, donc on peut dire qu'on essaye quand même de de, combler ce gap-là et d'accompagner notre jeunesse. Oui, c'est une jeunesse euh, saine, comme on peut dire. À Fatigue, euh, les jeunes sont corrects, non violents et c'est des jeunes euh, qui sont toujours joviales, donc qui ont cette joie de vivre, cette joie vraiment de, de, de montrer qu'ils sont fiers de Fatigue, de leur localité. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, j'ai essayé avec les amis, les parents, les collègues d'essayer en tout cas de rendre un hommage à toute cette jeunesse faticoise qui a porté en tout cas le combat du chef de l'État, qui a porté le combat du ministre des Sports et qui continue de porter le combat de ses fils. C'est pourquoi aujourd'hui, on vient quand même leur honorer. C'est leur journée, c'est leur fête. Donc nous, on est venus que pour les accompagner. Je suis content, content parce que la euh, jeunesse Fatick moo xewle benn jeune promoteur organisé ñu fubalandoo man ak man mu tan ma si bir jeunes def ma parrain motax tay lepp luma am sumay xarit sumay mbokk sumay collègue ñi may jàppale mais aussi suma ministre mobilisé cabinet yep mobilisé ministère am donc euh, ñëw gunge ma si bëss bi donc lolu day wane rek que né en fait. Ni ma nekkal à bëggoon nañu réussite bés bi un sentiment vraiment de fierté et de contentement. parce que euh, il y a quelques années de cela dañ ma doon jàppale football fii si même stade bi donc moo tax tey bu ñu position

fépp fu président munta dem fu mu munta yegg loxoom munta yegg tànkam munu fa dem ministre bi loxoom munu fa dem tànkam munu fa dem ñun ñu demal leen suñuy loxo aussi mun di joxe loolu nga xam ne ñoom ñoo ko waroon di def loolu mooy rôle bi et je pense que ñu ngi jéem ak les maigre moyens yi ñu am di jéem lépp lu ñu am bokk ko ak waa Fatick lépp lu ñu mun ñu bokk ko ak waa Fatick je pense que ne loolu mooy suñu rôl te waa Fatick xam nañ ko ndax tey gis nga ni ñu génne ñoo jàpp bés bi xam ne seen bés la. doomu Fatick ni ma leen gisee mooy Fatick euh, ay nit ñu baax rek a fi dëkk ay góor dëgg ñoo fi dëkk. ay nit ñu bëgg seen bopp mais aussi ñu am fulaak fayda ñoom ñoo fi nekk loolu moom mën naa ko témoigner si Fatick moo tax moment bi nga xam ne doomu Fatick soxla na dañoo jóg xeexal ko muy le président de la République te noonu lañ ko defee biñ koy defal Matar Ba noonu lañ ko paree def aussi pour d'autres fils de Fatick yoo xam ne heure bu leen seen dëkk soxlaa ñoom ñu ngi fi moo tax ma ne ay gor dëkk ñoo fi ne ñun lu ñu mën di def rek pour ñi xeeb nañu ko parce que amuñu dara mënuñu am lenn lu gëna kawé kawe Fatick Fatick mooy suñu Paris moy suñu Londres Fatick lañu am donc on est fier de cette ville là.